jot ci kenn yàlla yonent bi rabbi samawaati moom la xool moo tax rabbi samawaati bi moom nag moo koy fay loo defal ngir yàlla yàlla moo lay fay lii lañ wax man laa kaana lillaahu kaana laahu lahu boo nekkalee yàlla yàlla nekkal dafa nekkal yàlla yàlla da koy nekkal rek bañ bañ bëgg noonu yi dee nañu sonn nañu reculé nañu fennum leen day dem yàlla may mbaax bi ji ndeyam la ko njëkkee Mariama Kamara yóbbu yaayam Makka teral yaayam teral ay mbokki yaayam teral ay mbokki papam ku teral ay doy néew doole mi néew aduna yàlla da lay daal di teral xoolal doomi adama yu fi dajee tey kenn xamul dañuy wax rek mais kenn xamul seen lim ku ne ay million nit la da nga wax lu la neex rek mais kenn xamul lu ñu toll Thierno nee na kenn du mer joxe ay ceeb ceeb jeex joxe diwlin mu jeex joxe tàndarma suukar Nescafé meew lépp a jeex ba tey mu yëkkati xaalis joxe waat ay nit loolu ku baax moo ko mën nitu yàlla moo ko mën borom xolu ku tabe moo ko mën ku yaatu xol moo ko mën dama ne nit joxe na fu alal ba fa mburu ba jeexee meew ba jeexee suukar ba jeex mu yem fa waaye moom dafa ne du fa yem ceeb ba jeex na waaye du fa yem suukar ba jeex na waaye du fa yem day continuer di joxewaat waat xaalis yuqati xaalis di joxe waat nit ñi nee kenn du mer ñi di sa kër te kuy dem sa kër da nga yóbbaale dara lii la ceeb na def xanaa lii neex na. neex na Thierno xanaa yàlla da koy may. waaw yàlla da koy yokk fan. Mhm. Mhm. kenn ko téye. ku dara téye Thierno yaa fay diig waaye Thierno day dem. dafa laab dafa yaatu dafa mën a dajale ay mbooloo seetal Thierno lu muy def nii. ah fanweeri fan hmm? ci koor ndogu du dagg di dogal di dog jox ñi ñi ndogu dara manqué ay busier beurre ah jàkkee ak jumaa yi ak kër néew yi doole ñëpp ci profité di si ñoo jëlaale. jàkk yeeg en Jóob. jàkk yóbbu jumaa yóbbu ci jàkk yi yóbbu ci jumaa yi. ak hôpital yi ak mbokku yi. ak dëkkandóor yi ak hôpital yi ba dëgg naa sax mu naan ba ci ba ci kii yi sax euh, fu ñu tëj gaa yi prison yi ah loolu loolu loolu ana luy fay lii Thierno mbindeef amul fayam dañ koy ñaanal rek mais amul fayam. yàlla sama samawaati moo am fayam te yàlla dana ko fay ndax ku defal yàlla yàlla da lay fay Thierno dundal ba say may di baawaan ba ñu fekkee njëriñu prince Sow ci barke Mouhamed bu tedd bi Thierno doo daanu de koo jéngoon yi tuuti ngay jéng waaye doo daanu te ku la xaar yi dina xaddi ku lay fexeel nag day sonn te kuy wax ci yoore dañ laa xamul salaamaaleykum mbokk internet yi mbokku téléspectateurs yi safu di seetaan TMS TV dalati leen ak jàmm ci seen télévision bi feeñal lépp lu nëbbu làmboog njëriñ alors ñu nekk nii nag ci fi nga xam ne mooy di cabinet médical Thierno Moulé Sow le khalife général des djinns le roi de la médecine traditionnelle tey nag nekk 22 avril 2021 alors nekk huitième jour ci koor gi ngeen gis nag noonu euh, ñi nekk sama ginnaaw macha allah membre association bi ak ñëpp eh, ñi bokk ci euh, équipe kër gi ñu ngi daal di préparer mburu yi diw beurre diw chocolat diw mayonnaise jeunesse ngir rek euh, donc euh, jàppale leen lépp pare ñu mën ko jox euh, jaamu yàlla yi bu 7 jotee maanaam bu heure ndogu jotee fii ci donc TMS bi di ci ànd ak saa su ne ki nga xam ne moo di xalif général day jinn le roi de la médecine traditionnelle alors chers internautes chers téléspectateurs alors merci de votre fidélité et bienvenue dans, dans votre chaîne préférée la TMS la télévision qui montre ce qui est caché donc vous le voyez juste derrière nous les membres de l'association ainsi que les membres donc de l'équipe de la TMS du cabinet médical nous sommes en train de préparer les pains vous voyez les gens sont derrière de tartiner les pains donc de beurre de mayonnaise et de chocolat juste pour que euh, tout soit vraiment prêt à l'heure de la coupure

et, et ce qui se passe exactement avec donc la préparation du café donc ainsi de suite et lait ah, euh, pour euh, tout simplement vous montrer euh, ce qui se passe chaque jour euh, sur la TMS TV la télévision qui montre ce qui est caché. A'uuzu billahi mina shaytaani rajiim. Bismillahi rahmaani rahiim. نافاني من لم يكن بولدي ولا بوالد فتاب غلدي أنا الذي ولد خير ولدي وخير والد بغير بلدي بآله وصحبه والهمودي سلاعة ذي العدل العظيم جمدي جرجف جرنم لسوه نفعني من لم يكن بولدي ولا بوالد فتاب غلني أنا الذي ولد خير والذي وغير والد بخير بلدي بعلي وسبي والهمدي salaatu ci alil azim zamadi jërëjëf fa cenn mu li sow xutbul jamaan نفاني من لم يكن بولدي ولا بوالد فتاب الذي على الذي ولد غير ولدي وعلى والد بغير بلدي بها لي وسبي والهمدي salaatu adlazi mi damadi jërëjëf Thierno Moule Sow nafaani man lam yakun bi waladi wala bi walidin fata bagaladi أنا الذي ولد غير ولدي وغير والد بخير بلدي بعلي وسبي والهمدي فلا توزي الأرض الأزيم بجمدي جرى يفجن مولزو نفى عنه من لم يكن بولدي ولا بوالد فتاب غلدي على الذي ولد خير ولدي وغير والد بغير بلدي بآله وسبه والهملي صلاة الأرض العظيم سمدي jërëjëf Thierno Moule Sow نفعني ما لم يكن بولدي ولا بوالد فلا بخل لي أنا الذي ولد غير ولدي internet yi mbokk téléspectateur yéen a ngi ànd ak ñun ba léegi ci seen euh, donc euh, reportage euh, ndogu tey nag maa ngi wax sànq sax huitième jour mais tey nag mooy neuvième jour ci koor gi ngeen gis nag ñu ngi nii ànd ak ñi nga xam ne ñooy defar café geeg meew ba ginnaaw ba ñu jógee ci mburu mi ñi koy beurre ak di ko chocolat mayonnaise ñu ngi nag fii ci ñi nga xam ne ñooy defar café ak meew ngeen gis agent de sécurité yi allah ñooy defar café geeg meew bi ngeen abak mu ngi noonu di jéeri café bi ngeen gis nag Aliou mu ngi jéeri meew bi macha allah far na trop macha allah man xam naa ne sax meew mi moom xaw ma naan ci donc mu nekk affaire bu doy waar ngeen gis gars ngi préparé léegi bi Jóob mu ngi ci beneen côté bi macha allah ñëpp donc di liggéey ngir rek ànd ak le xalif général day jën Thierno Moulay Sow le roi de la médecine traditionnelle ngir rek lépp defar parce que gis nañ mu yore ay mbuus yu yu jaune mu ngi préparé mbuus yi def ci ay mburu ñu bëgg a xam nag mbuus yi fu mu jëm Diop ñu ngi lay nuyu di la dalal ci temest TV mbuus si yi ngay préparé euh, lan nga koy doy ak fan nga koy yóbbu. waaw salaamaaleykum Saliou maa ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di bëggee ñëpp macha allah eh, di nuyu kilifa gi Thierno Moule macha allah di nuyu Pape Diagne nekk ci caméra bi boo xoolee mbuus yi xam nga ne chaque jour dañuy préparé pour yóbbu ci jàkka yi macha allah moo tax boo xoolee ni jàkka la ñuy préparé pour yóbbu si jàkka yi. ak ak ak hôpital yi ak ñi nga xam ne yelloo nañ ko macha allah Saliou. Moussi moom chaque jour da ngeen koy yóbbu ci jàkka yeeg hôpital yëpp da ngeen fay dem. waaw boo xoolee hôpital yi dañu fa yóbbu ay mburu yu bari ak jàkka yeeg café geeg meew beeg lépp dañ ko fay yóbbu macha allah képp ki nga xam ne yelloo nañ ko rek incha allah dañ lay jox ndogu macha allah ba nga dégg jàmm macha allah. ñoom loolu nuñ ko gisee waa ñi nekk ci jàkka jeeg waa hôpital yi lan lañ leen wax par rapport ak loolu. waaw Saliou xanaa ñaanal kilifa gi rek ñaanal sëriñ bi macha allah saay boo saay su ma demee ñu ngi naan Diop ah waxal ñu ngi koy ñaanal muy imaam yeeg ñëpp macha allah ak malaat ñu ngi ñaanal sëriñ bu baax a baax a baax ñun tamit ñu ngi koy ñaanal parce que lii yombul macha allah gis nga si événement bi ñu jógee xam nga ne sëriñ bi génne na ay ko si taawal bi jënd ko ay ceeb ak duulin jox ko jaamu yàlla yi waxatuñu mu génne waat xaalis bu bari macha allah daal di koy wecceeku jox ko jaamu yàlla yi kon sëriñ bi ñun ñu sax dañu koy ñaanal waaw macha allah boo xoolee ñëpp ñu ngi koy ñaanal imaam yeeg jàkkee ñëpp ñu ngi koy ñaanal macha macha allah jërëjëf Diop yàlla yàlla nangu ñaan donc ni ngeen ko gisee noonu ni ko jóob waxee donc depuis lundi macha allah sëñ bi mu ngi génn woon ay sukkaru koor yu am solo daal di koy jébbal jaamu yàlla yi ne seet wu ci dara lu dul rek ngir liggéeyal yàlla jàppale nit ñi ci weeru koor bi ginnaaw bi ñu jógee ci mbas mi nga xam ne vraiment dafa yàggoon trop te métti ngeen gis ne nag joxe na frais ay toni toni toni ceeb 15 tonnes ceeb génne xaalis bu bëri lu toll 32 millions génnee nag 2 millions yi nga xam ne moo topp ci 30 millions yi daf ko nag daadi di euh, tas ngir rek jox ñeneen ñi nga xam ne mënuñu am ceeb ngeen gis euh, bagage yi ñu ngi nii ba léegi ay mbanaak ak ay euh, ñaari mbanaa ñu ngi noonu yoo xam ne nii depuis keroog lundi non seulement joxe nañ sukkaru koor mais nag dañu toggoon ay mana mana mana ngir rek jox ñi nga xam ne ñoo fi ñëw jox leen aussi ci ndogu bi pain bi nag yokk nañ ko ngeen gis 200 baguettes 250 baguettes pain la ñu indi chaque jour donc ngir rek jàppale gars yi daal di koy joxe ci kii donc 200 yi boo ko xaajee mooy nekk 500. mu nekk 500 personnes donc ñu ngi leen di jaajëfal ci seen colté ngeen des ak ñun nag euh, bu dogu jotee incha allah ni ñuy dogu dina leen laaj seen impression li ñu xalaat ci li nga xam ne sëñ bi moo ngi koy def préparation ndogu bi ngeen gis nag kafe gi noonu amat di ko jëri xaaral ñu jël ko Euh, laaj ko li nga xam ne moom lay def fii ci kafe gi ak euh, naka la koy dundee chaque jour amat ñu ngi lay nuyu di la dalal ci TMS bi nga nekk agent de sécurité mais nag macha allah yaa ngi jàpp ci liggéey bi nekk ci kafe gi voilà yow naka ngay defee bi ak kan fiy jàppale. waaw waaw ñu leen di Saliou ñu ngi leen fay bu baax du nuyu waa TMS yëpp rawatina ñu ngi nuyu sëriñ bi bu baax a baax a di ko ziar bu wér. waaw gis nga ñu ngi nii de di jàppale Diop ci ndoguli waaw ak sëriñ maag sëriñ ñoo nekk si kafe gi tey ñoo ci nekk si café gi waaw tey waaw waaw ñoo ci nekk tey quoi. café bi moom ndax yomb na defar maanaam moom. waaw waaw waa waaw waaw moom yombul moom mais xam nga rek dañoo nekk weer bi nga xam ne weeru ngëne la lu ne yombul sax parce que dañ koy def ak passion quoi te kiñ koy defal tamit xam nga jar na ko waaw te ñun dañ ko bëgg rek te yàlla tax quoi waaw yàlla avant ñu ñëw fi sax yàlla dogaloon na xam nga ñu bëgg ko lool sax moom te jii ni yàlla dogal ñu liggéey ak moom waaw sant yàlla rek kon ñu ngi lay jaajëfal Amath ngeen dégg kàddu yu rafet yooyu Amath euh, wax ñu nekk toujours ci ndog li kon nag euh, des leen ak ñun ñu ñëwaat rek euh, ci kanam tuuti daal di jël ñi nga xam ne ñoo fiy ndog si seen impression laaj leen ni ñu xalaat ci li nga xam ne sëñ bi mu ngi koy def di car Thierno Moulé Sow le roi de la médecine traditionnelle le khalife général di walidin bi ghaib baladi بآله وصحبه والهمدي salaat dil adil azim jamadi jërëjëf Thierno Moule Sow nafaani man lam yakun bi waladi ولا بوالد فتاب غلني أنا الذي ولد خير والذي وغير والد بخير بلدي بعادي وسبي والهمدي salaatu til alil azim zamadi jërëjëf Thierno Moule Sow xutbul jamaan nafaani man lam yakun bi waladi ولا بوالد فتاب الذي على الذي ولد غير والذي وعلى والد بغير والذي بعلي وسبي والهمدي salaatu lil adlazi mi damadi jërëjëf fa Ceerno Mulla Sow nafaani man lam yakun bi wala bi walidin fata bagaladi ala allazi wulida xayra waladi وغير والد بخير بلدي بعلي وسبي وسمدي صرت ذي الأرض الأزيم جمدي درجة فجن ملزو نبهني من لم يكن بولدي ولا بوالد فتابغ الذي على الذي ولد خير ولدي وغير والد بغير بلدي بعلي وتبي والهملي salaati sil adil azim samadi jërëjëf Thierno Moule Sow <coughs> nafaani ma lam yakun bi waladi wala bi walidin fala baxaladi ala alladi wulida xayra waladi وغير والد بغير بلدي بآلي وسبي والهمدي صلاة الأتلاجي مزمدي جرجة فجر ملتو اللهم صل على سيدنا محمد ولا آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد ولا آل سيدنا محمد وسلم كان مليا بري مقامه kenn mun la yaa bari xam-xam kenn mun la yaa bari yërmande allahumma salli ala sayyidina muhammadin wala ali sayyidina muhammadin wa sallim اللهم صل على سيدنا محمد ولا آل سيدنا محمد وسلم جانا مولايا بري ارمانه جانا مولايا بري خمام ceerno mu le yaa bari yërmande ceerno mu le yaa bari maqaama ceerno mu le yaa bari yërmande allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammadin wa sallim اللهم صل على سيدنا محمد voilà li tey dina. yu TMS TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay ci saa su ne comme niñ koy defee ndogu mbule ak ramadan mbule macha allah tey le neuvième jour ci weeru koor gi macha allah ñu gis noonu Pape ñu ànd ceeg Pape sama caméraman macha allah ak équipe bi. bi nga xam ne ne mooy équipe bu TMS TV ak taalibe Thierno Moulé Moulé Moulé yi macha allah comme nu ñu koy defee chaque jour macha allah di ñëw ci joge joxe ndogu macha allah comme suñu sëriñ ni ma waxoon ci à chaque fois yaramam day tàng day dem prolongation vingt million lañ compté woon waaye yegg na yaakaar naa ne romb nañ vingt millions ñi ngi ci trente million jëm kaw macha allah gis nga. bi ñu génnee ceeb génnee diwlin génnee lépp li nga xam ne ne moo war a ànd ci loolu li ci des nag ñu toog fii ci buntu kër gi di ko def ay ndogu fi nga xam ne mooy jaamu yàlla yi di ñëw macha allah di xewlu ak ñi nga xam ne ne heure ndog da leen fekk ci yoon bi macha allah ñu gis noonu camion yeeg taxi yeeg scooter yi macha allah ak ñi nga xam ne dañoo ñoo dëkk ci koñ bi ci gox goxaan ni macha allah dañuy ñëw heure bu heure ndogu jotee dañuy ñëw fii di ndogu si kon nag macha allah jaaraama Thierno Moule saw le khalife général des djinns macha allah le king des kings la solution macha allah bu ñu la solution solution génn ci réew mi macha allah ndax ku jël ay million xalaatoo ci dara dul jaamu yàlla yi di ko ko jël jox jox leen ko. am yéene ak xol bu rafet macha allah te loo xam ne yow lekkoo ci naanoo ci macha allah jaamu yàlla rek moo leen ñor kon jaaraama Thierno Moule Sow macha allah ñu gis barki Demba Ndiaye lii xew ci réew mi macha allah muy télévision ci Sénégal yëpp daal di ñëw taxaw macha allah suñu sëriñ ñu koy waxee ci saa saa su ne doo nax sa xandang doo naxaate tubaarikàlla macha allah ah woote woo nax sa xandang benn yoon. yaa ngi doxal ci yoonu yàlla yaa ngi doxal ci yoonu yoon macha allah xalif général des jinne macha allah dëkk bi di riir di riir di riir yëpp macha allah yaa ngi toog sa ruq macha allah di def sey millions xoola prési Alseyni si laa ngi noonu macha allah président ngi noonu moom tamit tey sax moom it mi ngi ci àddiyee doole bi yor ay mburóom macha allah di distribuer di jox doomu aadama yi waaw mi ngi noonu macha allah waa équipe bu TMS TV bi ñu ngi noonu tamit wàcc daal di ànd ak taalibe yi ñi nga xam ne ñooy taalibe Thierno mule maanaam mule mule yëpp du ma lim kenn ndax boo limee dangay ngay juum mule mule ñëw nañ indi seen doole maanaam lii mooy addee doole ndax ginnaaw suñu sëriñ bi mu yëkkatee ay millions yu bari daal di koy ñëw def ko ci weerum koor bi ñun tamit lu ñu war mooy indi suñu doole macha allah participer ñu ngi noonu ba ci garde sécurité yi sécurité yëpp ñu ngi noonu nag macha allah yi leen gis ñu ay termus macha allah di jox. taximaan yi di jox ñi ci mbedd mi macha allah di leen jox ndogu kon nag xalif général des jinne kenn amul fayam macha allah yàlla mi am fayam yàlla na ko yàlla fay ndax li ñu wax ci weeru koor nit ko weer ba ngoon jot nga yëgati benn ma jox ko ko rek dafa rëy waxuma laak nag génnee lu toll ne ay ceeb ay diwlin macha allah lépp lépp lépp daal di koy jox jaamu yàlla yi génne ay mburu lépp ay ndogu di ko jox jaamu yàlla yi kon jaaraama Thierno Moule Sow le xalif général des jinne kenn moom نبعني من لم يكن بولدي ولا بوالد فتاب غلدي على الذي ولد خير ولدي وغير والد بغير بلدي بآلي وتبي والهمري صلاة سلعة العظيم شمدي jërëjëf Thierno Moule Sow نفعني ما لم يكن بولدي ولا بوالد فلا بخل لي أنا الذي ولد غير ولدي وغير والد بغير بلدي بآلي وسبي والهمدي salaati atilaaji mi zamadi jërëjëf jërëjëf mu li taw اللهم صل على سيدنا محمد ولا آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد ولا آل سيدنا محمد وسلم jaanamu de yaa bari maqaama jaanamu de yaa bari xam-xam jaanamu de yaa bari yërmande allahumma salli ala sayyidina muhammadin ولا آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد ولا آل سيدنا محمد وسلم يا نبي يا برير ماده jaay na mu la yaa bari xam-xam jaay na mu la yaa bari yërmande jaay na mu la yaa bari maqaama jaay na mu la yaa bari yërmande allahumma salli ala sayyidina muhammadin ولا على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد ولا bu coow lu bëree yow bu wax ci bëree bu jëf ji bëree yow la ah macha doomi ajaratu Mariama Camara ji macha allah doon naxa sa xandang bokkoo ci naxa sax xam nag bokkoo ci naxaate macha allah dangay def ñëpp di gis tubaarikàlla macha allah yaay borom riir bi la macha allah yaa jël millions yu bëri fëkk ko ci table yaa woote baax yaa woote macha allah yaa xam fi réew mi toll réew mi dafa corona macha allah nga ñëw di dégager loolu bari ki dem boo jaay nga teg millions yu bëri macha allah askan ñëpp ñëw ci wàllum ceeb ak diwlin ñoo la waaye nga teg 2 million macha allah teg ko ci table di kon nag yow jëflanteekoo sa borom xalif général bi ci la ñi lay demee ci saa su ne woote woon naxaate de ay millions yu bëri nga woote macha allah caméraman yeeg télé ci àdduna bi yëpp daal di ñëw macha allah ñu ngay def yu baax macha allah di servi di jox nit ñu ñuy lekk di naan kon nag yaay borom magi boire suñu waa ji fi naxaate amu fi macha allah ah. xalif général day jinne macha allah borom kër macha allah taalibe yaa ngi noonu ay ta Diop caabi doole fii dara du doy macha allah ngi noonu prési macha allah tey sécurité sa dañoo tax bu dëgër gaa ngi noonu café gi di jol jolaanoo kon xalif général marché quoi la woote suñu waa ji borom kër ba pare eew ne ko mujjee la lii kas noon ni dama koo ragal ci mim réew lii dama koo ragal <laughs> xalif général dey ji na macha allah borom voie bi day def ñëpp di gis. macha allah eh kasulor loolu dama foo général dey ji ne borom kun macha allah millions yi bëri na. mbir bi jël jëlaatu taalibe yaa ngi nii taxaw macha allah ku fi xeesul da ngaa te ñëpp a rafet mule mule yaa ngi noonu ñëw indi addiyee doole macha allah nii lay demee ci saa su ne ak xalif général bi jinne borom kim macha allah 2 millions allah la prolongation pour joxe joxe joxe joxe ba mu jeex mu xalaat ñu ca xam ne ñoom ñoo nekk ci pépinière yi amuñu yaay amuñu papa macha allah mooy xalaat ñi nga xam ne mooy néew di joole mooy xalaat ñi nga xam ne ñooy prisonniers yi ñooy xalaat ñi nga xam ne ñooy xale yi ci daara yi macha allah suñu sëriñ waxoon naa leen ko yaramam day tàng nee naa leen ci saa su ne prolongation la jëm te ku ne xam ne ne nag dégg lañ prolongation ba 30 millions macha allah kenn xalif général dégg na te taxawagul de suñu waa ji taxawagul day dem borom kun macha allah borom marché foire lal Alseyni si laa ngi noonu président national ànd ak ñi nga xam ne ne ñoom ñoo nekk fii ah addee doole macha allah di lay demee ci saa su ne oto yaa ngi taxaw ñëpp ngi taxaw ndax nit ñi xam nañ xalif général bi ni muy def ci saa su moo tax ba heure ndogu jotee ñëpp dañuy ñëw taxaw ndogu si kon nag jaaraama xalif général bi ne macha allah borom kun macha allah kenn du moom kon nag xalif général bi dina ni lay demee ci saa su ne tey la neuvième jour ci daal bisu ndogu bi neuvième jour lañ wax macha allah te duñu taxaw nag ba 30 jours duñu taxaw nii la ñuy def ci saa su ne kon nag ku koy jéem ak ku ko mën duñu benn macha allah nga xalif général jéemoo fi dara duñ koo mën moo tax ci saa su ne dañuy dem rek di dem rek borom ko macha allah duñu mën a taxaw kon nag salaamaaleykum rahmatulahi taala wa barakatu ba ci